ku fi xëy na ak yooyu. ñu ngi ne waaw bu fekkee waajuram nekkul te moom rek moo fa nekk. waaw su boobaa yónnee nu jënd fi am. xar mu tabaski. Mhm. jor nag muy tabaski fii tabaski fële. dëgg la de da ngay gis nag kër xam nga julli nit ñi dañu aada woo dem di julli ci fereer bi fereer yi julli si kenn ko ne bu ñëwee indaaleem xar kenn ñëpp indi seen i xar xari jabar yeek dama jëndal sama yaay xar Euh, <laughs> affaire yi xorom la ñuy def ñun moo taxin mënuñu ko waaw lii may xaru meer bi lii mooy sama xar lii mooy su ko defee at moo jot ñu ne xar yi dafa manqué Sénégal oh, tot ñun nag vraiment na waa Mali ñëw lu ko may xar yu dumat waaw na waa Mauritanie ñëw lu ko may xar yu dumat dëgg la de loolu rek la ñun jotul ñu woote dialogue ñun au lieu ah. que mu yem ci waaraate waaye ah, euh, maanaam président wooteel ñu assise boo xamante ne dialogue lay doon ñu waxtaane waat suñu feet ah, yi diine yi lan la lislaam bëgg ñu feete ko yàlla na la président dégg waay waaw ñu toog waxtaane ko nag ñun tam def ci ay réforme nag ni nii lañ ko war di feetee léegi <laughs> doonatul maslaxa ñu ñambaas ca waxtaane aj gi aj gi waaw ñambaas ca waxtaane asaka waaw ñambaas ca waaw waxtaane weer séntu weer waaw kay lu dëgg dëgg la waxtaane ca tabaski dëgg la lu jaadoo ngi nii rek ñu doxal lépp dëgg la de officiellement dëgg la de ci yooyu de ci ñu war a waxtaane la bokk waaw buñ ca tënkee nag ba déggoo ci def ko ci këyit jox leen waaw état jàppale ñu nag am rigueur nag ñu mën koo dund comme waaraate bi mënutu ci dara dañuy wax ba pare ñu ne waaw waaye waaw waaye sama yaay xaw ma nu ma koy def <laughs> waaw waaye oustaz baal baal ma jënd rek mu ne baax na <laughs> <laughs> moo tax dañ tegoo luñ mënul ba tey amin yaa rabbal alamin amin am na solo lool